c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi taamu Alfayda la référence internationale daal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci déwén na ci leen ziar bu mag bi jeex na tàkk gannaaw bi imam Cheikh noppee ci ñaaru fan woote yi lal nañu waxtaan wa ni ki démb ca bayaal ba mu feesoon dell bay tuuru xalifa bu tedd bi teew fa ñaanal ñëpp ñaax ñëpp dangeen ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne fera bu kilifa ya fayul liggéeykat ya seen fukk ak ñeent weeru payoor daañu soppi et la responsabilité des autochtones de Kaolack ci ab janook taskatu xibaar ko xamle daa ngeen ci dégg Jabel Traoré ci wowle uh, waxtu yelimaanu jëwriñ yi di Amadou Ba moom ma nga doon daloo musée mémorial ba jagleel uh, njabootu ñalaru woon ci bato bi ànd ak ay tëli ak i pont ca Jululu ak ca Bayla seen ak mbégte ñoom waa Casamance foo ko natt weesu na ko daa ngeen dégg ci biir xibaar seen rubrique jàngandoo ci beneen anam tey jii soxna Ndeye di euh, day te bitim réew roppalaan bi Aline Badara Diop moom moo ko yore tàggat yaram daan ci ànd ak Serigne Moussa li yéen a kaay ji daan ci El Hadji Seydina Omar Cissé li lépp yembe mbokk yi xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala ta loolu ñu dikk ak yéen si atal fatigué gannaaw bàkk bi lay doon dal leen ak jàmm mbokk yi ci bile jotaay xibaar El Hadji sa mbay moom laa janool ci wàllu ko machine bi nga dégg-dégg bi man di leer nañ leen ko waxee noonu lañu koy dooree waxtaan wi aju woon ci ziar atum ren ji di 2024 laloon nañ ko rek ni ki démb ca bayaal ba mu feesoon dell taalibe yi bàyyeew ko woon fu ne ci biir ak ci bitim réew waaye itam euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi xalifa bu tedd bi di cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass euh, teewoon fa jëmmal ko cheikh Tidiane Diagne lool. bés bii tey. yal nañu ko yàlla nangu. yal nañu ko yàlla nangul yaara bi taalibe yi taalibe yi seen seen li mu taalibe yi dañoo bëri ba bayaal bi fees dell jàpp kër ki nga xamante ne moom moo di Seyda Nafisatu bintu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass gannaaw bi imaam Cheikh amalee ñaari fani woote bi démb nag lañu ñu lal li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi bi min wi toftalee ay simili ci la xalif général bi di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass di yegsi ci jotaay bi fii la fekk kilifa diine ak kilifa aada rawatina njabootu Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass taalibe yi dal di gàpparndeku ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne moom moo di njiit li Cheikh Mahi Baye Mbaye ngees li wax ci lan yi taalibe yi bëgg nga li ñu sant ñuy def rek. te lii wane na ko mel ni tool tay bi ci ñun. muy yàkkamti at sax mu jaar ba mu sëtteeg jàmm ba leneen taxawaat loolu rek lañ bëgg fii nag ki ñu dana bàyyi. tey bii yàlla wax ji mu ténk ko ci ay simili yu néew a néew Cheikh yi Niass mi àddu woon ci kàddu taalibe Baye Niass yi dikkaat na ci ana lan moo tax taalibe yi génnee ki seen gafaka jox ko Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ngir yeesal seenub ziyaar soxluñ dara soxluñ xaala soxluñ xiila bu bàyyi ko ci ñoom sa xaalaa neex sa xiilaa neex lépp loo def neex nañu wallaahi ngir bëgg El Hadj bàyyi lañ yi tamit bàyyeekoo woon ci biir réew mi ak ci bitim réew lu ñu moo tax Cheikh Mahi Baye Mbaye Niass delloowaat leen ci liggéey ak jaamu yàlla waaye xidmal Maulana Cheikh al Islam. mbëggeel googu nag ci gàttal. tey li ñu fi indi. ñetti yëf dong la. nga nanguñu suñu taalibe taggal ñu bàyyi ba suñu xol sedd nga ñaan la ñuy dem ñu tàmbali ko niki barki démbu démbu ci aljuma gi nag xalif bi daal di ñaanal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taalibe yi gannaaw ziare bu mag bi nag fi ne xel ya xalaat yépp mooy waajal gàmmu ba Niassène bi nga xamante ne jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier. tal ak fekkee la ñuy ñaan Cheikh Tidiane Diagne déwénati yow itam maam Baye Niass Maulana Cheikh al Islam borom Madina waral bis bi ah, màggaayam ak njëriñ rek ah, li nga xam ne ah, liggéeyal ko am na lool ci taalibe yi Moustapha Niang mu ngi ci ñëwaat. waaye lisaalu xaali taalibe yi fi teew yëpp tey li muy wax. mooy ne ñëw nañ ci suñ dégré sëriñ te bu ji dem dañu ànd ak bépp xiw dañu ànd ak ndollal ki ñëw ak ki ñëwut yëpp xam na ne ziyaare baay ziyaadatu rek moo ci mën a jugee ñi ñëwul sax seen lisaani xaal mu ngi wax la taalibe baay ba waxoon yemmin madina wa in dafarta bi raaqi li dawil garaami fa sif lahu ashwaaqi demal madina boo demee yóbbuwaaleel suma mbëggeel ci Medina te bu ñuy wax mbëggeel ci Medina baay bi fi nekk a tax kon muy mel ni dafay wax ne yóbbul ma suma cofeel ci Baay Ñas radiallahu taala anhu wasif lahu ashwaaqi loolu la taalib yëpp wax tey jii bàyyi boobu nga xam ne melalee nañ ko nu ne te melal yëpp mu xëyoo ko wa bihi shariatu ci moom la sharia matee wa bihi alxaqiqatu ba tey alil bunyaani ci sharia itam tamakkana saytuha wa bi shariati tamakkana saytuha wa bil xaqiqati qad sama bunyaanuha kooku mooy suñ sëriñ nga xam ne sharia ci moom la yëkkati goo xaqiqa waxuñ ko ndax mooy abul fayda moo daan lan yëpp fa asgaru atbaa'i bari'un min ashirki nga gën a néew ci sumay taalibe mucc nañ ci bokkaale loolu di ko wax taxsilul xaal nga di ko amalaat wala loo ñëpp xam nga di ko wax waaye dañ koy wax rek pour barkelu ci jotaay bi te bàyyi radiallahu taala anhu wax na ñi ko xidma ñi ko liggéeyal jot nañ seen càkkutéef àddina ak àllaaxira Moustapha Niang ka yore kàddu yi faydu bi di Cheikh Mahi Cissé moom nag euh, sàkku na rek ci xalifa bi ngir mu ñaanal taalibe yi ñaanal Sénégal waaye it àddina bi laata moo ñëw rek ci njàngaleem Maam Baye Niass waaye itam taxawaay bi taalibe war a am jëmale ko rek ci euh, sëriñam Cheikh Mahi Cissé ak Cheikh Tidiane Diagne taalibe Baay buy dundal alalam daf koy dundale ci yàlla benn bés bu mu dund ak Baay waaw dund ak mag yi nga xam ne moo leen yaral boppam kooku dundale ci yàlla dana ko wax dëgg-dëgg taalibe yi ñoo coobare woo ziyaare ngir yàlla sëriñ bi benn taalibe man sa wax ne mas naa toog mu ñëw suñu dëkk laaj ma xam yaa bëgg ziyaara ngir yàlla yaa coobareewoo dundale sa alal ngir yàlla ndax dangaa bëgg xam yàlla dundale ci yàlla liñ ci yàlla dig mooy lim dig wàllu yàlla ñi nga xam ne dañuy dundale seen alal guddeeg bëccëg ci lu feeñ ak ci lu nëbbu yàlla nee na seen yool tàbbi na seen borom te duñu ragal tey duñ ragal ëllëg dundale alal mën naa maye loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen fekk safara donte benn genn wàlli tàndarma la loolu la mag ñi jàngale bàyyi ko fi waaye ajuwuñ ci alali taalibe yi waaye waxoon na ne ne moom jaamam yàlla la bugul ci taalibe yi ñu fay ko bugul ñu gërëm ko dara jaamloowu ko lu may péeb yàlla bi waaye taalibe yi bañ bëggee yàlla xam yàlla xam lan mooy ziyaare ci ngir yàlla naka la tool toll yàlla yërëm na jaam yi yërëm nga ne goo xam ne yàlla amul barab te jaam yi di ko nam mu defal ñu néeg ñu ne néegam yàlla ku ko nuyu ñu yàlla nga nuyu muy ab doj fi bàyyi jógee doomam toog di koo xam ne moo ko yar moo ko li mu war a def boo ko nuyoo ñu ne bàyyi nga nuyu ku la weddi ki nuyu kaaba gi ñu ne yàlla la nuyu ñi bëgg yàlla seen namu yàlla mooy àgg ci ñu am luñ jëmmalee yàlla am nañ ne yàlla amul jëmm bàyyi waxoon ne moom ne dëggal naa sama borom ci lépp lu jëmm ma yàlla muy jëmmu ku dëggu mën ngaa dëggal bàyyi fii nga ñëw ci kanam këriñ bi ziyaare dunda la ngir yàlla dajee ngir yàlla sant ngir ngir yàlla jox sa alal jaam boo xam ne boo ko joxee mu dundale yàlla dundale ko ci yàlla loolu yëpp xéewal la ci kaw xeew duñu sant yàlla mu ñaanal imaam imaam it mu ngi koy ñaan mu ñaanal taalibe yi ndax lu jamono jafe-jafe bu leen ooyee ci bàyyi dañ uysi te bu ñu uysee dinañ uysee ni ñu war a uysee jafe-jafe la jamono di ciy feeñ loolu nag taalibe bu dëgg bu nekk mën nga ko am si dañuy wax ne daanaka dëgg mooy sëriñ waaye nee na li nekk ci ñun kenn du ko am lu may ci bëgg ak dëggu yal na yàlla may bëgg yàlla may dëggu ñu ñaan sëriñ mu ñaanal imaam saafara saafara suñu way feebar yëpp ñaanal Sénégal ñaanal àddina yëpp kenn ko Euh, xalifa bu tedd bi nag di cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass moom nag daal dina yëkkati ay kàddu ñaax jëmale ko ci taalibe yi laata mu leen di ndokkeel ci bis bi ñu teewlu ko di Tidiane Diagne. leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp bes yi nga xam ne ci ngëneelu yàlla rek la bàyyi ko men mahdi fadlillahi tabaraka wa taala ci lañ koy amee ndax dama dama càkkutéefam ci àddina yépp mooy mu am lu dal xolam am lu ko dalal ci àddinaam te loolu yépp dugg ci àddina bi yépp doo gis foo ko mën a amee lu dul ci yàlla rek nga ko mën a amee yàlla rek moo mën a may jaamam dali xol yàlla moo mën a may jaamam itam dali yaramam dali dundam loolu yépp yàlla moo ko mën a defal jaamam yàlla ñu ko yàlla defal mooy maye yàlla jaral nga dem uti ci yàlla jaral la lu nekk jaral la tukki yu sori jaral la joxe sa alal jaral la joxe say bés say guddi yépp ngir nangu yàlla nangul la sa yëngatu yi nga xam ne yaa koy yëngatu jëm ko ci moom te amul sikk ne yàlla nee na boo ma joxe benn ma fay fukk bon suñu jotaay bi yépp loolu rek lay tekki doomu aadama dooleeku rek la bëgg dooleeku ci baatin dooleeku ci zahir dooleeku ci xam dooleeku yëgam mën a yeewu ba mun li muy def lan la lu mu ci yóbbu ak lu mu koy utee ñun ñëpp daje ci mbaar mi alhamdulilah yàlla may nañu yëg yàlla may nañu suñ yëg itam yeewu ba xam ne kenn nekku fi ku mën a dimbale jaamu yàlla ku dul yàlla rek moo tax yàlla xool ñu ñun ñëpp antumul fuqaraau ilallahi wallahu wal ganiyul hamid yéen ñëpp soxla ngeen jëm ci yàlla ndax amu leen dara yàlla rek moo am yàlla rek mooy doylu yàlla rek moom lañuy sant ci amam ndax amoon boobu moo am yëpp jaamam yi ko soxla rek la koy jox mu ne nag ñun ñooy fuqaraaw ilallah waaye nag moom moom nga xam ne ñun ñu ngi soxla jëm ci moom mu ngi xamal ne moom ganiyun xamid bu am la te itam amam yépp dañ ko ci sant bon am googu yàlla am ko soxla googu ñu soxla ko moo indi yëngatu yi yépp ñuy def moo indi yëngatu suñuy baay ak suñuy maam suufu yoon wii yoonu ut ngërmande yàlla yoonu ut jàmm ci yàlla yoonu ut dolleku ci yàlla ñu sóobu ci mu dugg ci ñoom lu nekk fekk na leen ci waaye xam nañ ne lu jaam mën a am rek yàlla rek moo ko joxal gàllankoor yi bari yi safaan yi bari nañ waaye terewul yoon wi moom leer na ci yi nga xam ne yàlla may na leen nasarul qalbi yàlla may na leen itam am nañ yëg yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñaareelu pàcc bi ñu ngi ko jagleel jafe-jafe yi askan wi junjoon nañ leen ko pënd ba wureegul ci diggante liggéeykatu feexa yay bale euh, suuf si ak kilifa yi ñu jàpp ne boobaak léegi ñu ngi leen di xaarloo jëm ci seen ak payoor euh, jàpp ne nag app ba fi mu toll ni nag mat na euh, sëkk li ñu bëgg mooy ñu fay leen seen ak a ñaata weer la ñu toog jotuñ seen salaire a leen Diop lu tolloo fukki weer ak ñeent moom la ñu toog jotuñ seen i ndàmbaañ ñoom ñi la di liggéey ci kuréel gi di feera ab jano taskat xibaar la amaloo amaloon fii ci doon bu Kaolack ndangaan ngir lu baax a baax wax bodde gi nga xamante ni gis nañu ko ci kilifa yi Serigne Jabel Traoré moom mile moo doonoon seen porte parole. bu fekkee da tënku ci contrat lépp lu contrat wax da ko war a respecté quatorze mois je peux dire percevoir un te ñu ngi sur le terrain di liggéey chaque mois ñu ne ñu xaar leen y a des lenteurs yooyu yëpp nag on comprend mais dañu bëgg a xam ne ñun bu fekkente ne ay ndaw lañ te ku ne xam ne ne bu ñuy wax ndaw lenteur administrative am fu mu yem waaw mais nag a xaar a mu ne nii on la ñuy jublu noonu la ñu def rawatina ñoom jigéen ñi nga xamante ni ñoo bokk ci kuréel gi ni mel ginnaaw liggéey bi métti bi nga xamante ni faral di jànkonteel jafe-jafe métti na lool man bi sax damaa tooy bay doog a tane nii ndax suuf dafa métti chaque jour ñu xëy ci tali ba feebar kenn du la faj sa mbokk moo àkki mu ne la yaa ngi liggéey xam nga loolu dafa métti salaire yi ñëw ba tey satuma màggal ga ba léegi la jëloon kuréel gi di feeraa nag soo moytuwul des de Kaolack waaw waaw parce que boo gisee lii xol du oom ba ñu koy bës waaw léegi nag feeraay ñëpp ñoo tënku seen kàddu jiital ma dénk ma kàddu bi ne dañ ñoo bëgg jiital nga waxal ñu lii ñu dégg ko parce que sonn nañ mënatuñu dem te nag def nañ liñ war a def qui fait son devoir réclame ses droits mboolem nag seen bëri waaye fokk natt weesu na ko ñoom ñi ne nag ci njëkk rek la ñuy ñaax kii di njiit réew bu Sénégal di monsieur makki Sall ngir kër mu jàppal leen ñu mun leen jox seen i ndàmpaay ndax xaar bi moom yàgg na lool ci noonu nag ñu bu dee indi wuñ saafara i jafe-jafe yi la fas nañu téye seen i loxo ne la duñu bokk ci élection présidentielle yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal fekk diir. Aline Badara Diop euh, Fera bu Kaolack képp nag moo nekk ci jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci ñoom euh, yëlimaanu jëwriñ ñi di Amadou Ba la ñu sàkku rek mu fay naar bi xoromam lu ko mooy rek daañu leen won seen bopp ci élection yi euh, gannaaw ba gisu seen bopp ci xëyu ndaw ñi lan ngeen fas yéene def Jëbel Traoré. léegi nag ñu ne dañuy wàcc société pour jàppale ndaw ñi la moo taxoon mu ta déclenché xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi nag dañoo bëgg mu xam ne ndaw ñi taxaw gisuñ ci seen bopp te loolu dinañ ko wax xamuñu nag tag tag bi li tax jotuñu suñu xaalis te Fera du Kaolack rek dans toutes les régions du Sénégal Fera mu nga fa mais am na ñoo xam ne ñu ngi percevoir seen salaire ñu koy jot normalement mais pourquoi ñun Kaolack rek ñu mun a liggéey plus de douze mois mënuñoo jot suñu xaalis am na beneen tranche boo ne sax c'était l'année dernière signé war convention bu deuxième convention bi dafa am ñu bëri ñu gedd parce que nee nañ comme fayuñ leen bële weesu ñoom duñ mun a tàmbali waat beneen convention ndax ku ndóbin rey sa mam boo gisee lu ñuul da ngay daw donc ñun ñu am courage ne nañu ànd ak ñoom parce que comme état la état lu mu wax dina ko def parce que ñun nous croyons à la justice ñun dañu gëm suñu état et dañu gëm ne nit ku liggéey ku def li li mu war a def dañ ko war a delloo ak xam ak yelle fam waaw donc bi ñu tàmbalee ba léegi gisuñu benn avancement chaque jour dañuy ñëw te en fait ñii ay ndaw lañ ay jigéen lañ dañuy jugee ba ay sing-sing ba ay gannaaw marché kibel ñii jugee ba te chaque jour seen ñooy débrouillé wu seen ay passe no dama ne bu état réagirul léegi nous nous allons croiser les bras on ne va pas voter bu état réagirul on ne va pas voter feera yëpp ñu ngi fi dama ne ku ci nekk sa kër sa mag sa ndey sa baay sa xarit say dëkkandoor ñëpp yëg nañ coono bi ñuy dund te nañu xam ne lii dafa indi frustration te lii baaxul ci élection élection yi ñu jëm te maa ngi cité le ministre de tutelle Amadou Ba moom mii le chef du gouvernement di ko xamal ne nous avons toujours été loyal waaye bu fekkent ne jàq taxawuñ ci ba ñu jàppale ndaw ñi fay leen liñ leen yoreel nañu xam ne biir Kaolack kenn du voteel Benno Bokk Yaakaar. Jabel Traoré ñeneen ñu nekk ci jafe-jafe mooy askanu Kër Samba Khoudia gën ca fas rek di mbiru courant ak ndox way politiciens yi lañu bëgg a wax rek ni naxe mbaay ya ñu nekkee ak ñoom jeex na tàkk dañ leen di yëg rek ñu yëg leen noob yaay askani kër Samba Khoudia fii ci commune bu Diagane Barka département bu Foundiougne ñooñu ay jafe-jafe la dund mu dem ci wàllu ñàkk am courant ba ci am robinet yi suñu sukkandikoo ci Makumba Ndiaye mu doon wax ci tur askani kër Samba Khoudia dëkk ñu wër yëpp am nañ courant ñu am nañ courant suñu bant yi ñu ngi leen fi jóor bañ leen fi jóoree léegi mën na juróomi at juróom benn at ñu ngi dig rek di wàllu di daanok fas ñu ngi wàllu nawet ci dëkk yi dëkk yi am courant ñun ñu métti nañ ko fay léegi am nañ courant mais ñun courant moo ñu të diggante courant bi ak fii kay ñetti poto la askan yi yow fii ci kër Samba Khoudia ñooñu nee ne bépp élection bu jaar fii ci Sénégal parti au pouvoir ñoo doon gagné Samba Ndiaye Moustapha Mbaye mooy président départemental bi ñaari mandat yëpp moom lañ ko woteel moom lañ ko jox élection bi mu jublu see moo ñu indil poto yii mu ne incha allahu su ma gagné bët set dinaa jox seen poto yi ñun mosuñ am xiili xaala Moustapha bi mu taxawee tey ñaari mandat yëpp moom lañ ko jox saa bu yegsee rek mu ñu dem fekkente élection yi jaar yépp parti au pouvoir moo gagné fii ci kër Samba Khoudia askani ñooñu pare nay boycotté l' élection présidentielle bu février 2024 ci fekkente li ñu doon xaar ci état senegal amuñu ko dinañ tere bépp politicien dugg ci seen dëkk ba. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñetteelu pàcc bi wàllum suqaliku lañu ko ah, jagleel dañ koy dooree rek ak tournée économique ah, ba mu doon amal fële ca diwaanu ndax géej daal di fay daloo nag ay bërëb yu bare bare bokk na ci agence yi nga xam ne jëm ci wàlluk suqaliko waaye itam ah, juma bu mag ba di grande mosquée ba nekk foofee ca diwaanu ndax géej teextu nañ ko moom jiitu réew mi Macky Sall baax job teertu gu mag lañu ñu njiitum réew mi président Sall file ci dëkku Maam Kumba Bang bi bi muy wàcc ci aéroport international Ousmane Masseck njaay moom président de la République Macky Sall ca googu mu ne ba ci route de Xor foofi foo tànni mbàtt mu takk ne askan wi génn ci ay lim gu takku politiciens yi dal di wane seen bopp ay pankart cortège bi di dox ndànk lim gu takku ci askan wi góor jigéen mag ba ci ndaw ñëpp di sara xolle boole ko yuuxu ngir tertu kile di président de la république Macky Sall ba ba muy yegg ca agence de la BCEAO bi nekk ca route Xor foofu mu daal di wàcc amal inauguration lu jëm ci wàllu ko bërëb boobule mu nekk bërëb bu taaru lool agence bu yees boobu nag nekk ñeenteel bi ci façon am gannaaw bi ñu amal ci capitalu réew mi Dakar ak Kaolack ci année 1960 yi ak ci diwaanu Ziguinchor 1981 loolu li nag nekk yokkute jëm ci wàllu ko développement ak socio-économique gannaaw ubbik bërëb bu banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ak ci anam bi ñu ko defaree ñu njortu ne alal gu takku war nañ di ko fi denc ànd ak loolu moom njiital réew mi président Sall ba mu jógee ca Route de ci la jawali ci grande mosquée bu diwaanu Ndar Géej nga xam ne lu toll ci juróom benn at ñoo ngi woon ci tabaxaatam mu dal di yembu mu nekk bërëb bu taaru nekk jumaa ju njëkk ci Afrique de l'Ouest imam ratib bi Cheikh Ahmed Tidiane amal julli ajuma bi délégation njiitum réew mi taxaw ci sàppe bu njëkk ba ca gannaaw Oh. Saint-Louis Alfayda FM Baara Diop. jaajëf dañuy jóge ko wàllu dem ca Casamance fekk fa yëlimaanu jëwriñ ñii di Amadou Ba moom itam daloon na fa musée euh, mémorial le Joola ci teewaayu ay ministre d'État ci lim gu takk lool waaye itam waa administration bi euh, ci pàttali nag mémorial boobee ñu ngi ko jagleel leen ñu loro woon ci batulu Joola Amadou Ba ak Mohamed Sagna. may félicité ministre bi di félicité autorité administrative yi autorité municipale yi en un mot ñii nga xam ni dañoo jàpp ci projet bi ba mu yegg fii dëgg la yéene président la dëgg la bëgg-bëggam la tey ji bu sañoon moom ma fi taxaw waaye agenda may ko mu ñëw fii ndax li fi amoon lii fi nekk liñ fi tabax lu ko soxal la gouvernement bi ci la dina fexe ba li war a nekk ci musée bi yëpp mémorial bi yëpp nekk ci mais au-delà du mémorial bataille bi nga xam ni tey jii dinañ ko accélérer renforcer ko après avoir gagné la paix c'est de gagner le développement et la prospérité de la Casamance. Amadou Abba yemul rek ci mémorial Joola boobee tuuti ca département bu Bignona daloon nañu fa pont bu jululu ak bu Bayla ah, loole nag doon mbégte mu rëy ci soxna yi borom dëkk yi ak way politiciens yi seen kàddu Mouhamed Sagna moo ko taataan nit ñi bon ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan fii boole si ñu bëri jóge fii nag ay handicapé parce que boo defee accident boo muccee yenn saa da nga nekk handicapé taxul suñ fu ñu nekk nii bii dañ koo defoon pour autant amuloon ay véhicules yu bëri mais léegi comme yaa de véhicules yu bëri daal bon moo tax daal bii moo gën a baax pour jamono ji daal ah kay kontaan nañu kontaan nañu ka mu ngi koy kontaan nañu population boo xoolee ni ñi seen mobilisation bi engouement bu ñu am si lii xam ne vraiment kontaan nañu si pont bi l'état bi dans la région de Casamance Casamance pour une fois dañoo gis président boo xam ne bu liggéey dans le désenclavement si zone yi parce que Sénégal foo xamante ne maanaam déggante dëkk dëkki dafa amoon géej fex na ba def fa pont ku mel noonu nag dañu koy sant moo waral sunu teewaay fii ak mobilisation bi ngeen gis sunu militants yi fii pour na ko merci monsieur le président la République lu mu def pour vraiment le Sénégal surtout pour la Casamance je dis parce que pont Farfigné kese doyoon na pour ku nekk nga gërëm Macky Sall yokk ci jululu yokk ci marsasum sans compter la boucle du Boulouf compter bu kalunaay ak leneen ak leneen pont bi juróom-ñaari milliards ak genn wàll la ñu defaree pont jululu juróom-ñaari milliards ak ñaari téeméer millions la ñu defaree pon Bayla kon boog pon yu am doole lañu pont yi nga xam ne xarala technologie yu gën a mucc ayib yu gën a bees yooyu la ñu defaree pont yi le te pont yi nag yàlla def na bu soobee yàlla dina dund lu mot téeméeri at nga xam ne kon caaxaanewuñu pont ca Ziguinchor chef d'état-major yu l'armée bu Sunugal ak bu réewum Gambie ñoom nag amaloon nañu ab lël euh, muy wane rek ab déggoo bi nga xam ne dox na seen diggante firnde gi mooy nag daal nañu xaatim itam ab déggoo ngir aar li nga xam ne rek moom mooy frontière yi dox diggante ñaari réew yi euh, Croix Fulgence Ndour di chef d'état-major armée bu Sunugal ak Ousmane Gomez di chef d'état-major adjoint bu défense Gambie euh, ñu teewlu leen ci waxukaay yi euh, Mouhamed Sagna ginnaaw bi suñu ñaari président yi tase ci conseil présidentiel bi amoon au mois d'août ak suñu ñaari kilifa militaires yi tase nañ au mois de novembre bi ñu tasee nag dañoo décidé woon ne day am benn bi bipartite de défense boo xam ne dinañ ko taxawal diggante Sénégal ak Gambie li ñu def boobu ñëwee léegi dañoo commencé xool jafe-jafe yi ñu am ci frontière bi yëpp ci wàllum sécurité biñ ko defee ba pare li ci gën a génn mooy ñun ñëpp ñëpp xam nañ ne war nañoo lënkaloo pour jéem a xool nu ñuy saafara jafe-jafe yooyu ñu am ci frontière bi biñ ci jubboowee ba pare ñu taxawal commission bi te délégation gambienne ak délégation sénégalaise ku ci nekk maanaam ñi ko gën a composé mooy commandant de zone yi ñoom ñoo teew fii waxtaan nañu ku ci nekk ci sa wàll ak ci zone de responsabilité bi nga am bi loolu yëpp pare définir nañ benn programme programme boo xam ne ci la ñuy xel di ànd nan la ñuy defee patrouille yi périodicité bi loolu yëpp xool nañ ko te juboo nañ ci ay kàddu te maa ngi rafetlu daal vraiment taxawaay ku nekk ndax ku ci nekk daal ñëw nga ak xelu jàppalante parce que loolu moo mën a faj problème mu frontière. points yi yoo xam ne dañ ko discuss fii nii that is eh, security along our border lines. suñ border bi suñ frontière soo si agreement bi buñ def agri nañ si loolu noonu dañoo ño commencé operationalize ah, luñ agri fii that is lu nekkoon si agreement bi so loolu noonu yaakaar naa trop ne suñ ko starté daal dañoo mun a am better security better security bi nekkut ne ay soldat rek ak ko mun a def ifin civilians is a security lañ so luñ agri fii nii daal léegi pour dellu la rek ñu start liggéey bi so luñ gis si affaire yi border bi su dee dañ patrol ñu gis jafe-jafe si affaire yi border border bi am na commission yoo xam ne ñoo responsible border bi so luñ dee def rek dañoo dem ñu report back to the commission or ñu report si suñ autorité bi suñ autorité bi jël ko yóbbu ko si commission bi. ñu des ba léegi ci wàllu wàllug jàppalante ak dimbalante ña na jàngee ci lycée Moustapha Ndiaye eh, nekk ay kilifa léegi fàttaliku nañu daara ja eh, jare ko rek ci taxawal ay programme jëm ci soppi xaw eh, kanamam ci seen doole yi bopp ci set ak setal lañu ko njëkkee Mamadou Julli Ndaw nan ngeen ko xalaatee. ñun de dañoo créé woon benn panel bu ñu tuddee promo MOHM El Hadji Moustapha Ndiaye mooy suma promotionnaire de classe yi nga xam ne jaar nañ fi depuis 86 def nañ lu ëpp fanweeri at ak nag gisante wuñ déggante wuñ mais grâce à WhatsApp ñu créé panel boobu bu ñu gisantee déggante daal ñu ne war nañ am rencontre rencontre boobu ñu ngi ko defoon le 30 décembre bi passé rencontre boobu aussi dañ ne woon comme ñun ñëpp ci école bi lañ daje woon école bi pour visiter école bi mais wax dëgg keroog bi ñu ñëwee daal niñ gisee école bi ñun ñëpp suñu yaram la doon daw bi ñu fi jógee aussi dem def assemblée générale réunion ñu ne ñun duñu xaar kenn duñ nekk fi naan kii moo war a def li kii moo war a def lii kii moo war a def lii ñun fii lañ jógee kon dafa am lu ñu war ci école bi lu ñu war ci école bi ñu ne la première des choses duñ nekk fi sax di waxan dañuy activer la première des choses organiser désherbage parce que gis nga ñax mi fii danger la ñu ne nañ fexe ñax mi jóge fi ñu set setal ko programmé nañ aussi ñu ko yàlla mayee ba ñu fekk ko ba yegg ci weeri koor bi danañ organiser benn conférence religieuse xool ñi nga xam ne ci école bi lañ jàngee ni ñun parce que ñun ñoo leen jiitu mais fekkante nañ fi ku mel ni Aliou Sow ku mel ni Amadou Lamine Dieng ak ñeneet ak ñeneet ak ñeneet ñu parrainé leen ko xanaa suñ leen ko parrainé ku ci nekk da nga indi as tuut lépp luñ indi suñ ko dajalee dañ koy investir dañu xool suñ doole ñun lam waral a ci école bi ñun ñu def ko tàmbale nañ ko te fas nañ yéene continuer ko Mamadou Diouly Ndao proviseur lycée Moustapha Ndiaye boobee ñu taxawaloon atum 1958 ba léegi mu màgget lool terewul jàngalekat yaa ngi cay def liggéey bu xarañ lool euh, Mody Abba mooy proviseur bi defal ñu situation école bi. situation école bi situation bu métti la waaye nag ñun comme ay ndaw lañu on est obligé dañuy liggéey daf suñu kéemtalaay kàttan xar suñu tànk tubéy pour que njàng mee njàngale mi du sooxee si suñu côté ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ak jàngalekat yeeg administration bi yëpp bâtiment amul benn changement amul benn réhabilitation rien du tout c'est véritablement déplorable waaye nag terewuñu ñun liggéey bureau bi ñu nekk bu école ubbee ndox bi day nekk ne man ma nekk ne ba ay fan boo gisee yow sa bopp kenn mënul weeru kenn mënul def dara bureau bi gis nga nu kenn mënu koo defar déjà fauteuil bu baax sax amu fi biir classe yi noonu tablement yi sonn nañ en li fi nekkoon depuis des années moo fi nekk ba léegi waaye nag 2023 on est à 86 école bi ni mu mel parce que dafa xaw a doy waar yàqute bi léeg sax début d'année bi classe dañuy xeeñ am yenn odeur yu ñuy am ren sax année bi école di ubbi am nañ euh, parce que parents d'élèves bi dañu jotoon a yëngal tuuti ñu amoon ay réaction mairie conseil départemental service d'hygiène et ñëw pompe et loolu nag xawoon tane tuuti mais état bi ni mu mel mu ngi causé élèves yu bëri ñu ngi dem ñu ngi dem si voie normal parce nii dañu jaar par planète dem si beneen école si biir dëkk bi wala si yeneen dëkk école yi si biir Sénégal boo xoolee si ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñetti élèves yi ñu amoon entrée en sixième téeméer bi ak euh, ñeent fukk rek ñoo si des ñeneen ñëpp ñëwaatuñu parce que loolu yëpp c'est compte tenu situation école bi ni mu mel. Modiba. ca école ba nag la ñuy seen set ak set ak seetal bi nag ba ñu koy amal société bi di SODAGED la ñu awoo ñoom ñoo fa newoon ma defar ba nag métti lool waaye ñoom Moussa Camara ñu ci wut ay pexe. société bi dafa nekk société nationale boo xam ne partout au Sénégal dañ fi intervenir quoi ku mel ni monsieur Ndaw daf ñu sollicité woon Sonaged Kaolack pour ñu ñëw appuyer leen jàppale leen si liggéey bu muy def fii si école CM Moustapha Ndiaye looloo waral suñu teewaay fii waaw dina xaw a difficile nag waaye dinañ def suñu kéemtulaay kàttan ba lépp lu ñu tax a fii rek ñu mottali ko bañ ñëwee dañoo commencé nii oto bi am nap doo ñu ñëwaat côté bi mu am nap doo kon nañ ginnaaw bu ñu paree foofu après bu machine bi demee dans la semaine ñu jéem a indi benn équipe boo xam ne dañuy yor ay ay jaasi ak bàkk bi di ñu woon tey ji la samedi seen rubrique jànkandoo ci beneen anam daay ak li ko soxe la ñuy waxtaanee euh, tey ji soxna Ndeye Fatou Cissé di ci euh, dalal capitaine Assoulo du chef secteur des eaux et forêts bu Kaolack. daa yi nag bëri na trop lu muy yàq liñ ci njëkk a ñàkk nag mooy li nga xamante ne nii mooy constituer gàncax gi maanaam lu ci mel ne végétation bi. jàngandoo ci beneen anam seen rubrique tey ci samedi jile yamoo ko ñaar fukki fan ci weeru janvier deux mille vingt quatre di àddu kon ci ponk ñeel euh, lii di feu de brousse et de forêt ñu naan ko daay euh, ak li ko mën a sookee. bu ñu jëlee ci at yi weesu maanaam ñu natt ko ci deux mille dix neuf ba fi ñu toll nii dañoo seetlu ne kaa yi day xaw di gën a yokk ndax boo jëlee 2019 amuñu woon benn kaa te ñu jëm ci 2020 ñu am benn cas ñu ñëw ci deux mille 2021 mu yéeg ba fukki cas ak juróom ñu ñëw ci deux mille deux mu wàccaat tuuti ñëw ci juróom ñaari kaa bi ñu ñëwaatee nag ci campagne bi ñu toll ñu ngi actuellement ci fukki cas ak ñaar kaaw fa yoo xamante ne nii doo xam ku ko def da ngay ñëw rek constaté ñu woo la ne la fa am na nga dem constaté waaw. li ni mel nag ñu di ci ànd ak kon ak capitaine Astou di chef de secteur des eaux et forêts bu Kaolack. jërëjëf. feu de brousse dafa doon loo xam ne lu doy waar la da lu ñuy nemmeeku bés bu nekk ci biir département bi moom ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax dal leen ak jàmm bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñooy ut lem ci garab yi ñooñu dañuy faral di jëfandikoo safara bu ñu ñëwee ba faj seen soxla ba pare dañu koy faral fàtte wala safara bi ëpp leen doole loolu mën na di feu de brousse bi ci topp mooy ñi nga xamante ne ni dañuy faral di tux des fois dañuy tux ba pare sànni seen mégot cigarette fekk foofu am na ñax bu wow mu jàpp loolu yëpp dafay indi fa beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne dañuy ruuj maanaam ñu nekk ci tool yi bu ñuy waajal mbay mi di ruuj dajale ñax mi taal des fois ñu taal mu ëpp leen doole wala ñu taal bàyyi fa dem loolu yépp ci li indi fa ci la bokk beneen bi mooy ñi nga xamante ni dañuy defar këriñ dañuy ñëw taal seenu këriñ ba pare ci àll bi pare fàtte ko fa wala këriñ gi desee fay wala ñu koy transporter mu wadd xal yi dal fenn mu taal àll bi loolu yëpp ci la bokk donc beneen pàcc bi mooy ñi nga xam ne dañuy sàmm yor seen jur am na ci sàmm yoo xam ne dañuy faral di tux te ci biir àll bi la ñuy jaar dañuy tux ba pare sànni wala ñu ñëw ci biir àll bi taal ndax sàmmkat bu ñëwee ci àll bi day faral di taal bu taalee ba pare bàyyi ko fa dem yoonam du ko fay wala mu bañ koo fay-fay bu baax loolu aussi mën naa taal àll bi am na si nag ñoo xam ne ñooñ dañ koy def ci seen tayeef maanaam ay mbirum yàqalante wala mere naa diw naa ñëw taal waaw wala ñoo xam ne bëgg saboote sabote ñu ñëw rek daal di ñëw taal bàyyi dem seen yoon bàyyi ba nit ñi kii ñu ñëw taal àll bi dem seen yoon donc loolu yëpp vraiment dañ koy faral di rencontrer di taseeg ñoom xeetu yooyu nga xam ne mën naa sabab feu de brousse cas yi ñu fi am yëpp ci département bi dañuy dem rek constater mais pour nga gis ki nga xam ne moo ko def du yomb ndax lu ci bëri mën naa bokk sax ci ñoom mais duñ ko nangoo boole loolu lañ leen di wax bis bu ne buñ leen di sensibiliser ndax dañoo am habitude heure bu ñu demee bi intervention fay fa ba pare daay suñu taxawee dañ leen di dajale ñu sensibiliser leen ne leen koo xam ne da leen di yàqal boole leen ko yoon dal ci kawam bu ñoon dalee ci kawam bu subaa dootul am parce que lii di yàqu ci àll bi seen njëriñ la yéen lay yàqu parce doole leen ku ko def donc boole leen ko mais xam nga àll bi dañoo yor seen réalité yoo xamante ne ñun mënuñu ko cerner moo tax des fois lu ci bëri cas yu bëri ki ko def duñ ko jàpp mukk rarement lay am voilà donc loolu mooy suñu jafe-jafe daal. fii la nag la ñu yemandeeg yéen ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam euh, dig daje beneen yoon. incha allah. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew Alioune Badara Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Ndeye Khady Sadio xibaaru bitim réew yi ñu doole ko coow li nga xam ne ba tey mu ngi am foofu ca réew bu Komor pënd ba nag wuréegul ginnaaw élection présidentielle yi nga xamante ni jot na fa jàll ba jamono ñu toll nag way kuje gi moom moomu lii ñu ngi wéy di contesté victoire bi nga xamante ni joxe nañu ko ci noonu nag jot nañu amal ab manifestation bu ama am solo ni ngi di démb ci àjjuma gi fukki fan ak juróom-ñett ci weer janvier ca dëkk ba mooy ca capitale ba di Moroni. xabaar yi. bitim réew ñu dem ci réew bu Guinée jënd ba nag ba jamono moom jël na ay matukaay mi am am solo ginnaaw bi jot gis na nag way taskari xibaar yi ñu ngi def ay liggéey yoo xamante ni yu jéggi dayo la maanaam liggéey boo xam ne dafa gàllagoos yi jàpp nañu ni wàllu liberté de ni mu war na a baax ñi liggéey ci wàllum tasum xibaar ci noonu jot nañ ne mekku nag ay doomu yoo xamante ay taskari xibaar lañu ñoo xamante nañu leen teg loxo ginnaaw ci liggéey boo xamante dañ ko jot def boo xamante ni ni jaaduwul wala sa jël ay tuuma yoo xam ne teg ko si ndoddu njiital gouvernement bi nekk foofu ci réew bu Guinée. xabaar yi bitim réew. ñu dem ci réew bu Burkina Faso gouvernement bi nag ginnaaw bu am solo bi nga xamante ni way takk der def nañ ko ba ñu jotoon a gàntaal nag li nga xam moo di coup d'état bi nga xamante ni bëggoon na fa am ci ay bés yu ñu génn ci noonu jot nañ nemmeeku nag ay doomu aadama yu bëri yoo xamante ne ñoo teg loxo ñenn ñi mën a jàpp ni ay civil lañu ni ñoo xamante ni ñeneen raj ci fonction publique bi maanaam doon ay takk der yoo xamante ni dañ leen génne li la war a jamono toll na gouvernement ba jël ab ndogal bu ama am solo teg ay daan yu métti métti doomu aadama yi nga xamante seen loxo laale na ci coup d'état bi nga xam ne ñu ko doon ci génn ki nga xam moo jiite lii di transition bi nekk foofu cëri ñu génn nag ci weeru janvier jot nañ ay doomu aadama yu bëri bëri yoo xamante ni seen loxo nag laale woon na ci mbir yi ni mel jàpp ne nag seen bëgg-bëgg bokkoon na ci gàntal doxaleen bi nga xamante ni gouvernement bi nekk foofu ci réew bu Burkina Faso ñu koy doxalee ci jamono ñu ñu toll bitim réew ñu jeexale xibaar bitim réew ak yenn cong yoo xamante ni mekk nañ ko te ñu ko def du ñeen ñu dul waaye israélien yi foofu ca bët gannaar bu Gaza ginnaaw armée israël bi nga xamante ni jot nañ ne nag jot na bambardé lu bare bari ne ngi ni démb ci àjjuma gi fukki fan ak juróom-ñeent ba jamono toll nag gisaguñ benn bilan boo xamante ni ay doomu aadama ñàkk seen bakkan la wante tamit ne mekku nañu ay yàqu-yàqatu yu bari yoo xamante ni jot na am foofu ci bët gannaar bu banda Gaza bi nga xamante ni fasal nañu xibaar yi ni mel mu mel na réew bu Israël mu ngi wéy teg fitna réew bu Palestine sant la gërëm la bu baax a baax Ndeye Khady fii lañ yamani ci xibaar bitim réew yi jàmm ju ñu xëy yendoo ko yal na ko yàlla tuur ci askan sunu gaal kenn day leen jàmm yaram xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyoo. day xadi maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram dañu koy doore ak euh, kookaan fanweeri édition beeg ñeent démb ca Côte d'Ivoire. ngeen ak Sénégal yi nag dañoo domte ñii di waa Cameroun door leen dóor yi métti ñetti bal ci euh, benn but ak euh, paasu Ismaïla Sarr Habib Diallo daal di tollanti Sadio Mané ñëw daal di leen doggali ba jongante bi jeexee nag kii di Ismaïla moom la ñu tàbboon sax mu nekk homme du match bi nag mu nekkoon euh, fukkeelu jogante bi juróom-ñett diggante ñaari gaynde yi Sénégal am na ndam nak daal di valider tikkeem jëm ci huitième de finale yi ñu déglu réaction Ismaïla Sarr. on est en ñun benn famille lañu ci loolu sax si la ñuy liggéey mentalement pare nañu waaye physiquement tamit pare nañu joxe nañu lu ñu am yëpp ngir gagné match bi alhamdulilah ñun benn famille lañu loolu sax moom mooy suñu force kontaan nañu sax bu baax a baax ginnaaw ginnaaw bi ñu gënee match bi ndax ñun dañoo yàgg ñàkk ci kanamu Cameroun maa ngi fàttaliku sax yi bu baax a baax. Euh, euh, féliciter mes joueurs je crois que ils ont fait un gros match aujourd'hui ils ont yi bu baax a baax def nañ match bu rëy sax respecté nañ consignes yi ma leen euh, jox liggéey nañu ci match bi bu baax a baax ba sax ñaari match yëpp sax mooy match Gambie bi ak. match ci Cameroun bi nga xam te ni moo jeex xaw na ñoo sonn nag ci deuxième mi-temps bi loolu mooy dëgg ndax Cameroun équipe bu mag la xam naa ne sax défaite bi du leen neex ndax ñoom yàgg nañ génnee ci ay éliminatoire direct ñun fubal nañu ñaari match si mu ñu juróom euh, ndax suñu objectif mooy fubal juróom ñaari match yi nga xam ne moom moo am ci Coupe d'Afrique bi lenn kese la mooy ñu mànkoo wuti ndam bi comme ni ñu koy waxee ñun ñëpp ñu daal di li nga xam ne rek moom la a rek gën a liggéey du ma jóg ci du ko wax Zori ak solidarité bi nga xam ne am nañ ko mais ñoom sax amaguñ dara bu ñuy euh, perte ndax mun nañ jël deuxième ba troisième ñoom waa Cameroun. lu ko jiitu Cap Vert moom dafa validé tikkeem ginnaaw bi mu daanee Mozambique euh, ñetti bal ci dara tey bu ñaari waxtu jotee Algérie mooy laalek Burkina Faso Mauritanie di laalek Angola bu juróomi waxtu jotee Tunisie di laalek Mali bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu dem ca denduk Europe ñaar fukki benn Premier League ci Arsenal dina laale Crystal Palace Brentford di laale Nottingham Forest ñaar fukkeelu bëccëg bekk benn Liga espagnol Rayo Vallecano di laale ak Las Palmas Valence di laale ak Bilbao Celta Vigo di laale ak Sociedad Villarreal di laale ak Mallorca bu ñetti waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett Bundesliga Fribourg mooy laale ak Hoffenheim Rennes di laale ak bëccëg beeg euh, benn calcio italien Rome di laaleeg euh, Hellas Vérone Udinese dina lekk eh, AC Milan fukkeelu bëccëg bi national 1 ñu dellu soit fii ci sunum réew suba université bu Saint-Louis ma laa lekk Jeanne d'Arc bu Dakar AS Bambey dina lekk eh, Assur Étoile Gitana bi jiitu dina lekk eh, Africa Promo Foot Rail dina lekk Port tey nag bu ñeenti waxtu jotee ASUC mooy laa lekk Gazelle bu Bignona AS Kolda dina lekk AS Kaffrine Mbour Petite Côte dina lekk ak AS Cambérène Magog day xadi gannaaw ba la ñaale yu jàmm li ma xibaaru tàggat jërëm yi jaa li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, li ci yéene kaay yi El Hadji Seydina Omar Cissé lañ ci àndal ah, laan bi comme gayndey Sénégal yi ñooy ay saay saay aay démb daal ca Coupe d'Afrique ba Sénégal fa jàpp Cameroun fa ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee mu halbatiku ko fa koo ngadd fa koo rëkk fa koo xët fa koo wulli fa koo dóor fa koo duma ba ñu tàlli ñaret ñetti bal ci benn ba tax yéene kaayu tey ñoom ñëpp a di kat ci ndam lu rëy li Sénégal am ci kanam Cameroun ni ki démb ah, yow seetal enquête yéene kaay fa wax ne doole yemut démonstration de force la Sénégal def ci kaw Cameroun vox populi ne ñi tax ñu naan gaynde dëgg-dëgg ñoom qualifié nañ huitième de finale te mooy Sénégal waa Cameroun yi doon tuddee seen bopp ay gaynde xanaa léegi mën na leen ooye muus wala fajëri yéen a ne fanweeri at ak ñeent ni nag bi Sénégal gëjee dóor Cameroun ci biir Coupe d'Afrique waaye bés ni ki démb effacé nañ mboolem lu ñu métti woon source a dëggal ko ne Cameroun fa daan mbuqi Sénégal waaye démb Sénégal a ko mbuqi laas yéen a ne attaquant yi fa ñoo wane seen doole démb leen di wax ñetti bii ko dugalee yaw tal bii bu njëkk bi corner défense su Cameroun mbëkk ko mu jàll Pape Matar Sarr xaru delloo bal bi ci surface bi Ismaïla Sarr fa contrôle orienté rek dóor bal ba dal ca tànk défense ba ray seen góor ba fañ koo daaj kër ga toj ñaareelu bii bi Ismaïla Sarr fa débordé centre retrait la defal Abdou jàlloo am dugalal fa teg tànkam rek caax ya boy Cameroun ñoom it dugal ci mbëkk bu rafet am yaakaar am ñaari occasion net tuut ñu égaliser Sadio Mané na leen xaaral ma ñëw tas seen yaakaar Gana Gueye fa débordé ca ndeyjoor ba centre à retrait Sadio Mané fa placé bi làq ko ci suuf coroon ndeyjooru maanaa ba fa daanu ba xalangu bal ba dugg bii bu rafet bés bi yéen a kaay na janvier 92 Cameroun moo éliminé woon Sénégal waaye démb janvier 2024 Sénégal moo mbuqi Cameroun kon ku nekk sa janvier 24 kaay na gayndey daal ndaanaan lañ info yéen kaay ne fa ñoo jat gayndey Cameroun yi la dépêche yéen kaay dëggal ko record yéen kaay ne gayndey Njaay mbara wàcc fa xiiru démb stade yéen a kaay ne gayndey yi kay fañ leen wanaasu dugal leen yéen a kaay ne attaque bu doon tàkk milieu de terrain bu dox Aliou Cissé kenn xamul lu mu ko wax Lamine Camara fa dëggal démb Ismaïla Sarr wane boppam Pape Matar Sarr fañ koo jëlale Krépin Diatta fa assuré Sadio Mané na leen maay dugal bi bu rëy ba tax El Hadj Diouf doon tëb di dal yëngal stade ba Samuel Eto'o wax dëgg yàlla fer play na ak gaynde yi Sénégal yi maanaam nangu na ne ñoo leen mën Rigobert Song entraîneur Cameroun na loolay dëgg tey Sénégal moo ñ mën moo tax mbuqi nañu Aliou Cissé ne hé waaye jeexagul beneen match vox populi na ko xaay ñun qualifié nañ huitième ñu Guinée dóoree qualifié nañ Aliou Cissé na ko déedéet man bëgguma ñu dóor ñu ndax kanaa xamu bii bi nga xam ne Cameroun dugal nañu ko fa maa métti neexuma su ma sañoon du dugal ma ko waxee ci info yéen a kaay l'observateur na Ismaïla Sarr fa dugal fa passé moom lañ tànn ne mooy footballkat bi gën a xarañ démb l'homme du match waaye dëgg-dëgg Pape Gueye tamit kenn du moom démb milieu bi Pape fa koo doxal mayewu dara les secours yéen ne waa kaaf yi ñoom démb neex la wuñ ndax seen site ba <laughs> tey ji ci samedi ji sénégalais yépp seen nopp yi ñu ngi ko jëmale ca waa conseil constitutionnel ndax tey la ñuy joxe liste ñi nga xam ne ñooy bokk ci wote 2024 yi muy liste définitive bi si du quotidien moo ñu ko xamal regard yéen kaay dëggal ko ne sénégalais yépp ngi déglu tey juróom-ñaari attekat yi liñ bëgg xam nag mooy ñaar fukki candidat ak benn yañ joxe woon ci liste bu njëkk ba ndax ñoom ñëpp fa ñuy bokk wala fañ fay yokk ñeneen ndax am nañu def recours ku mel ni Ousmane Sonko wala boog ndax fañ koy wàññi ndax na ñoo xam ne fa def ci ñoom recours ku mel ni Karim Wade Cheikh Tidiane Dièye Bassirou Diomaye Faye révélation ne tey daal mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy yeewi askanu Sénégal ñu xam nag léegi ñan ñooy bokk ak ñan ñoo du bokk loolu moo tax nag waa F24 di xoo juróom-ñaari attekat ya nga xam ne ñoom la Sénégal yëpp di déglu tey yaaw seetal F24 fa wax waa conseil constitutionnel na jël leen seen responsabilité te ngeen xam ne li ngeen nar a atte tey jii di ngeen ko layoo ëllëg ca kanam yàlla bu leen xool lu neex kenn bay atte lu dul yoon maanaam xañ koo xam ne war naa bokk ci wote yi bu leen ko def ndax histoire fa koy bind Mamadou Mbodj ci Vox Populi ne yéen juróom-ñaari attekat ànd benn parparloo ndax ñun fi mu toll nii bëggatuñ kenn ku ñàkk bakkanam ci ay affaire wote kon atte yoon rek libération moom fa ñoo xamal ne gaz bi ñu war a génnee Sénégal ba mën di ko jaay bitim réew bés bi ñu waxoon ne ci lañ koy commencé toxalaat nañ ko de te bii mooy ñeenteel yoon ñu koy toxal ki bëgg a dugal ci lu suqali diwaanu Casamance ba tax mu amal fa tournée économique du kenn ku may Amadou Ba njiitu jëwriñ yi direct news yu am a kaay bi ne ko yow yaay njiitu jëwriñ bu njëkk Sénégal mooy juróomeelu réew boo xam ne ci Afrique ñoo dàq tëj ay journaliste ci kaso ab rapport buy aar journaliste yi moo ko dëggal rawatina nag nee nañ at mi ñu weesu muy 2023 liñ fi tëj kaso ay taskati xibaar fa bëri ba jéggi dayoo moo tax Sénégal jël cinquième ci réew yi dàq tëj kaso journaliste ci Afrique keneen ku ñu tëjoon kaso di doomu réewum France bu jigéen Colline Faye te ñu bàyyi ko ba delloo ko réew mu ñibbi source a nee na fa yegg rek nettali la mu doon dund ci kaso Sénégal gi moom tubaab yaw seetal nee na moom mat laa ba mu amoon fa bokkoon ak benn jigéen boo xam ne fa hëmb nekk kaso ga lu tolloog weer ñoom ñaara ko bokk libération ne Colline fay tubaab bu jigéen boobu yemut fa de nee na askanu Sénégal bàyyi usmaan Ousmane ba léegi mi ngi seen xol yi te ñu ngi ci gannaawam waaye nee na li ko gën a yéem mooy patriote yi farandoor Ousmane Sonko yi dëggu gi nekk ci ñoom niñ gëmee pro fa jéggi dayo laneen lu jéggi dayo mooy juróom benn doomu aadama yoo xam ne fa ñoo yor ngàndaay bàyyi ba 5 heures du matin ñu dajji dugg ci kër ministre Serigne bay Thiam mooy këram nga nekk liberté 6 extension bañ yeggee nag gardien ba fañ koo jàpp takk na ko toogal fii wala ñu rey la dugg ci kër ga sàcc fa ay téléphone yu bëri daal di dem l'observateur moo ñu ko xamal ba tey yéene kaay bi xamal laneen lu doy waar yaaw seetal fa am benn waay boo xam ne am na jabar nekk ak jabaram ci kër gi waaye mu am benn dëkkandooram bu jigéen boo xam ne waa ji fa ko nopp léegi waa ji dem wax ko ko ne ko man daal faala bëgg dama bëgg ñu ngoro ci suuf kenn bañ koo yëg daal ndax sama jabaran ci kër gi te yow sama dëkkandoo bu rafet nga ndaw sa na ko man bëggantiwuma ak yow te faa bëgg nga bàyyi ma tontu boobu nag naqari waaja fa bàyyi rek ba ndaw sa dem ci duus ba di sangu mu dem dajji ubbi buntu ba rek rocci paaka tiim ndaw sa di ko xoo jam fa ko bojj ba dara jëwër ko waaja na teg nañ ko loxo ba yóbbu ko ca tribunal bu ndakaaru doon waa ma ne xatt bi gën a maandu ci lislaam mooy dugal ko ci dus ba moom itamit jam ko ay paaka rek nopp naa la noppu la nañ génn génnuñ alul fa jar jam paaka boo doon góor jantal dëgg nga ko fay bàyyi seeti keneen ndax ku lambu yaa tey fa ngay daagu fañ la nobee lii affaire ñàkk jom la ah. jaajëfal leen mbokk yi ci ànd beeg teewlu bi Alfayda International jaajëfal ko bu baax a baax moom El Hadji Libasse Mbaye mi nekkoon ci xarale gi yéen fare woon tam ci déglu bi ñu ngi leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen jaa Le journal Ndeye Khady Sadio